tey dañu ñëwoon di inaugurer li ñuy woowe parcours sportif communal donc mu nekk espace boo xam ne espace la bu xawoon doy waar euh, ci ay jamono ku fi jaaroon semaine bële wala yële passé jaaral fi tey di nga ne ah est-ce que fii laa jaaroon parce que leneen moo fi nekkoon yenn saa yi mbalit ñu gis ko fii yenn saa yi ñu gis fi ndox wala yenn saa yi ñu gis fi li nga xam ne ni mooy ay charrette yoo xam ne ni dañ koy wekki di ko fi di ko fi bàyyi donc yooyu yëpp ñu ne nag nañu fexe defar loo xamante ne tey dinañ liggéey loo xam ne dina jëriñ askan wi donc ci loolu nag population bi ñoom dañu jëm ci Euh, ñaax leen pour ñoom ñëpp ñuy def pratique sportive parce que pratique sportive dafa am au delà peut être amélioration cadre de vie bi ci cadre espace bi mais bu ñu poussé askan yëpp di def sport tey dina am lu bëri lu mu joué seen wér-gu-yaram te gis aussi ndawu Pikine Est ku ci bëggaan def sport muy man muy ñeneen da ngay obligé jóge fii daw ba dem ba plage Thiaroye wala plage yu Yaraax wala nga dem ba technopole ñu ne loolu waru am ndax am na loo xam ne tey bu ko askan wi soxlaa mu nekk besoin dañu war a fexe ba nga xam te ne tey fii ñu dëkk dinañ ko mën a am ku ko soxla mun a dox ñëw tranquillement bi tey dañu xool rek ci jamono yi tàngoor comme bi jëm nii ay xale yu bëri dañu naan lap alors que ñenn ñi xëy na dañ naan bëgg dem rek def sport dem géej suñu demee seen xel nekk ci dugg géej dañu dugg alors que lii bu ñu ko amee xale yi dootuñ demati géej dañu mën a toog fii lépp lu ñu soxla ci wàllu sport ci wàllu matériel de dernière génération yàlla dogal na ut nañ ko andi ko fii nii donc pour jébbal leen ko.